di leen nuyu te dit di indil ku bes tak ci plateau Dakar Actu bi tay nag ki ma leen indil day lëngus day yëngu ci li nga xamantene moy walu mode spécialement ci mode des hijab mom ibadu yi ñoo même su fekke dal dinay élargir dal le ci yok lepp luy euh, dal di fësal taru jigen mom nak mu ngi yor boutique bi ñuy wowe Glamour dévoilé basé wu fele ci Italie waye n'ak am boutique fait fu nga xamantene rek ay clientam ñu ngi fa ci Afrique ak it ci international bi dama len di rek ngeen daal di koy découvrir salaamaaleykum soxna May ñu ngi lay ziar bu baax di ziar képp koo xamante ni si yaa ngi euh, jàkkaarloo ak soxna Faye Diop ak bépp femme boo xam ne da ngay voilé wu di nuyu jigéen yëpp man nekk maa ngi tudd soxna Fatou euh, Italie laa nekk maa ngi yëngu ci li nga xamante ni si mooy affaire de mode comme ni nga ko waxee euh, di jaay comme yére bépp boo xamante ni si yow jigéen nga mais yëre bu yiw bu rafet euh, boo xam ne fépp foo ko sol rek mën naa ne daal euh, macha allah. kon nag yéen a ko déggandoo yëre Ibadou lay jaay waaye loolu rek nekkul spécificité nekkul spécialité am na yeneen ak yeneen yu nga xamante ne di ngeen ko découvrir ay surprise lay doon ci biir émission bi xanaa rek ñu bàyyi ko mu wax ñu li nga xamante ne moom moo ko poussé à que mu daal di dugg ci li nga xam ne mooy milieu mode bi.

duma def sama marque bopp duma di créer sama bopp duma di di commander ay euh, euh, paaya comme Dubaï euh, Chine et cetera di defar sama bopp di créer sama yëfu bopp ci non la demé dal ba ba ba xalaat ci ba tey mu taxaw ni mhm waa gis ngeen kon euh, bettu ma nag du ma ne guleet parce que Boy Médina la ah dafa waane bëgg àdduna bëgg sañse moo tax euh, bu falee fii rek dañ koy comprendre Médina ñoo demee noonu waaye li ma si jaaxal mooy que dafa am benn transition bu graaw da nga nekkoon jigéen boo xamante ne dafa bëggoon di solu yenn sol yoo xam ne euh, excusez-moi du terme mais dafa sexy et tout mais jékkee-jékki dem Italie foofu noonu rek daal di changer def yiw complètement lu waral loolu waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga euh, am na âge booy toll moom ñun jigéen ñëpp la yow da ngay foog ni boo asamaan bi doon daanu sax da nga koy téye waaye lu baax moom lu baax kese lay nekk tey euh, buñ demee ba xàmmee xam ni ñun kat ay jullit lañ te am na luñ bëgg euh, un jour bëgg nañ suñuy doom jaar ci yoon wala mu gën ñu yoon bi nga xam ni moom la jaar kese la waaw topp sama diine xam ni sama diine kat may muux sama bopp la bëgg ci la demee nag Italie da ko fay incarné daa fay mourou euh, di difa tamit comme comme li li dans wax sank affaire de voile etc. et cetera loolu de ci dougal xamné dal du lu du baax ma bayiko dal di sama kon nak eh, ngeen jang ci eh, yeen ñi nga xamantene ñu koy sétane nekkon na ku nga xamantene Boy medina la da daan solo tollu ci jamono tollu ci li nga xamantene moy digg dolem di sol lu ko neex waye dem na ba comprendre que ne diine bi mom la fep fep mom la mom moy mujjoy ci lepp ba dal di yi dal di solo lu yiw eh, di ko aussi di jaay ngir ñi nga xamantene ño ñoo mom ak ñi kep ku ko bëgg dal di koy jënd bu ko défé rek bëggoon na tamit nga wax ñu lan moy sa spécificité manam si li nga nekk muy mode bi yan façon tenu ngay di gën di ñaw ak sa clientèle lan nga leen gën a côté couture bi ak ci côté matière bi ngay utiliser. comme côté boobu ça dépend nga comme Sénégal fii euh, mën naa ne fi la parfum. moom moo ci gën a jar parce que comme ni nga ko waxee xale jigéen moom léegi ñu muuru ak ñu muuru ñëpp dañu bëgg lu baax dañu bëgg lu yiw diine ak jamono la ñuy boole waaw comme ni nga ko waxee diine <laughs> bu fekkee comme euh, sama client yi nga xam ni ñoom ñi ngi euh, comme New York wala France wala Italie comme genre de euh, tenue yi nii gën a bëgg mooy yi nga xamante ni si boo ko solee di nga dégg ci tubaab bi dina feeñ ci tubaab bi dina feeñ ci wolof bi noonu xaw ma nan lañ koy. des tenues passe partout ko waaw moom nga leen di gën di jaay ak yooyu. dépende daal ça dépend ci client bi ki ñëw li nga bëgg rek moom lañ lay defaral bu fekkee da nga bëgg man matériel la man maa lay imposer na la defal lii ak lii bu fekkee tamit da nga indi sa liwu bopp ñu endiché ak yow. ok euh, kon xanaa dañu daal di rek xool li nga xamante ne mooy sa mënin ci mode bi ñu xool la say tenue ak li nga xam ne moom ngay proposer tout le temps say clientèle daal di dellusiwaat. gisandoo ñun ñëpp tenue yi nga xamante ne moom la ñu proposé comme ni mu ko waxee am na ay jàllaaba am na ay col ay tuto yoo xamante ne sax ay voile daf koy jàngale maanaam ni ñuy musooro wala su la neexee sax muuru. waaw comme ni ñu ko waxee xam nga lee femmes voilées nag samay xarit lañ. Euh, des fois ma def musso sax ñu envoyer me message soxna Fatou pour musso bi nga def liñ bëgg per nga defal ñuko ko su ko defee damay obligé jour buma ma damay tok def ko après ma dugal ko des fois tamit nga jek jek ñu né la pourquoi do def tuto comme def make-up wala pourquoi do def tuto def solo ñu xol comme li ngay solo def ñu né et cetera ma defal leen ko yooyu yëpp euh, def ci def ci frère di ñu bu dee yéré comme niñ ko gissé gisee euh, lu rafet la. lu rafet xam nga lu rafet moom képp kuy jigéen rek xam nga ko te bëgg nga ko loolu rek lañ ci liiwee man sama ki may ki nga xamante ni si sa fa lay ay yére def naa moom man bi may jël euh, di gis ñuy commander yëpp ku mel ni yow mosuma ko parce que dama si compliqué dama ciy def lu ma man pour bëgg bu ñëwee ki nga xam ne daf koy sol pour euh, won ko nit ñi wala ki nga xam ne daf koy jënd bu ñëwee bu ko gisee dina mën kontaan. mais euh, li nga xamante ne mooy mode bi moom yamul rek ci di solal nit ñi di créer ay yére hijab dafay def li nga xamante ne aussi mooy make-up di maquiller ñi nga xamante ne ñoo ay clientèle am euh, make-up dafa nekk loo xam ne danga ko jàng parce que disons-le ah c'est compliqué nekkul loo xamante ne dangay ngay tëb rek def ko sans nga am base bi nan nga def ba génn ci. waaw man nag dama sopp te dama bëgg lu rafet. man lu ma gis mu rafet rek wala muy lu mu munti doon damay foog ni rek war naa ko mën man te j'aime ji nga jigéen lépp loo xam ne rek lu lay taaral la danga ko war a def la tout ba mën ko man j'aime jigéen boo xam ne comme nii bu la dara bettee rek boo demul salon wala dara après doo doo lii dama bëgg jigéen nga mën lépp boo fekkee ne da nga bëgg a génn pour faneen defar va bene bu fekkee ne yow da nga bëgg a liiwal sa bopp tamit va bene man affaire de make-up musuma ko jàng kon dégg ngeen loolu jigéen day pare loolu la ñuy wax fii jigéen day pare fu ñu la fëggee rek nga daal di mën a wuyu va bene kon moom la leen <laughs> digle yéen ñi nga xamante ne yéen ay clientèle léegi nag euh, xanaa dañu lay bàyyi rek euh, ñu daal di dem xool li nga xamante ne mooy euh, quelques tutos maquillage wala ay photo yoo xamante ne daal dina koy defal ay client am loolu yep mom moko ko nek ko xamantene ne xarañ na nyari ñaari côté yep d'après li ñu gis waye tamit euh, bëgg na nga wan ñu ne ñu nga wan ñi nga xamantene ñoy internetique yow yamulo ci solal ibadu, comme ni nga ko waxé won rek euh, da ngay solal bép jigen ak yéré yep ku ñew dang koy conseiller dal di koy wax li nga xamné moko japp et tout naka ngay doxalé loolu non parce que jigen dafa capricieuse. waaw xé dégg xam nga avant dama daan wax ñi muur kassa lay défaral di pour ma defaral ko muuruwul sax dama ko daan bañ tellement bul comprendre mais sama copine yi xam nga duñ la ci bàyyi des fois ñu woole fii waaw bu affaire de maquillage nag mën ngay defal ñëpp et cetera après noonu nag ci laa ko benn jour comme que dama ko daan defanto ma defal ko sama benn tata euh, tata Xadi New York la nekk dafa ñëw Italie ma defaral ko fi ma ko doon defaree nag après affaire bi rafet tellement bul comprendre am ku xamante ni si dañuy maye domam. ci la ko gisee nag bi mu koy gis dama sama mariage doom yow yaa koy solal ci la ko nit ñi commencé nak di xam affaire de maquillage bi ci Soxna Fatou no xamne bunu degge no dañ may wo man ma leen di maquillage defaral leen ak yoy fofu le maquillage bi soké ko

Euh, di fa toog di def ci ay euh, télé ay émission yoo xamante ne moom mii lay day euh, waaraate mbaa muy wax ci diine bi lislaam kon nag noonu la ñuy def rek ndax mënuñu ko woon a roofaale heure bi moo ñu xocc dañuy daal di rek tàggatoo ak yéen di leen jox ci daje si beneen émission